طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله mbokk salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu jaa ngeen jëf ci ànd gi topp gi seen site numéro 1 de l'actualité sur mobile Sénégal dikkaat ak yéen ci jotaayu waxtaan ak koo xamante ni defe naa doonatul ku ni présenté ci wàll wàllu la ca waa kër Maolana Cheikh Ibrahim Baye Niass Seydina Omar la tudd waaye nag bëri casquette lool ndax miin ngeen ko ci ëttu diine gi waaye defe naa moom it entrepreneur la. waaye tamit euh, taxawal na lu am solo kuréel goo xamante ni bëgg sa réew la tudd mu di mouvement fas yéene yëngu nag ci politique bi loolu yëpp dinañ ci ñëw ci biir euh, waxtaan bi seet naa Omar ñu ngi lay dalal ci jotaay waxtaan bi. waaw maa ngi lay fay di nuyu képp kuy bëggee Sénégal di la beral nuyoo yow yaa Moussa vraiment di kontaan trop ci teew bi ma fi teew tey. seet naa Omar dañuy ubbee. waxtaan wi lu gàtt rek ndax bëri na ñu miin sa jëmm ji à travers les réseaux sociaux à travers télé yi. Mm-hmm. waaye xëy na bëgg na noo xam ci tënk rek kan mooy eh, Seydina Omar. waaw Omar Niane alias Oustaz nit la koo xam ne mi ngi juddoo Kaolack ci Medina baay ci papam nekkoon jàngalekat. jàngalekatu arab jàngalekatu xam-xamu diine aussi nekkoon ci fonction publique bu bëccëgee mu lal darsam di jàngale bi ma amee bi ma tollee ci jàng alxuraan mu dugal ma ci daara ma dem jàngi alxuraan ci daara ku ñuy wax sëñ daara Ousmane Ndiaye falaa nekk ba wàcc alxuraan boole nag ak di jàng français ci école bi maa ngi doon jànge école primaire El Hadj Ibrahima Niass mu Medina Baye ginnaaw gi ma dem CM2 Valdiodio Ndiaye bi ma amee BFM nag ci laa intégré val Valdiodio Ndiaye bi ma amee bac 2003 ci laa ñëw Dakar fii université Cheikh ante Diop de Dakar nekkoon fii faculté des sciences juridiques et politiques euh, fii daal ci lool ginnaaw loolu nag ci la rencontré nag sama sëriñ Maolana Sang Abou Bakrin Barham Ndiaye kooku nag moo ma zikarloo formé ma ci ah, ne ma nag bàyyi lépp loo jàppoon te nga continuer zikar bi parce que lii mooy sa wërsëg te li te itam lii mooy sa yoon leneen loo jàpp leneen tamit euh, du dem euh, joxoon ma ci ay tegtal yu bari nag yoo xam ne lépp ginnaaw gi yàlla feeñal na ko vraiment. Euh, balaa ñoo ñëw ci sa diggante digganteeg sang su nga tudd mu di sang xam Ndiaye. Euh, bëgg na noo xam ndax euh, way wii ne ci yow ci wàllu zikrullah bi li jiitu sang di la euh, wax ni la nang ci consacré wu léegi def ko sa yitte ndax daan nga ko def ci sa ndaw wala daan nga ko fowantoo ndax daan nga ko pratiquer. waaw xam nga neex baat moom nekkul loo xam ne dañ da lay dab mais lu ñu judduwaale la xamoon nañ ne neex nañ baat nii waaye lu jiitu ñuy xam sang bi mosuñoo ñëw zikar fenn nag. mosuñoo zigarandu ci benn daayira wax dëgg bi ma ko xamee ci laa commencé ci daayiraam xadraam laa njëkkee zikar a njëkk a jàngaloo ay texte Baay Ñas yu muy taggee yonent bi ne ma jàng bi ma ko jàngee tamit tamit inspiration ñëwal ma ci ci ay air euh, yu ma ko wayee ci noonu nag laa commencé di zikar foofu mu may euh, tàggat nag di ma wax na ma dafa nooy na gën a dëgër et cetera sonal ma ci torop bu ñëpp tàccoo ba pare dafa may tàccu ci biir nit ñi waaye bu ñu wéetee maak moom kese ci daf may nag dal ne ma vraiment li ngay def neex na mais na gën a dëgër na gën a génneel xaal bi xaal bi ñëwagul ba léegi et cetera ci noonu laay dem topp ci topp ci euh, ba mu baax daal lu jiitu may ñëw ci moom daal mosuma am fit sax jël parole ci mbooloo wax dëgg. sa digganteeg sàng barxam nga dikk ci rek ndax xam naa ni mi ngi waaw sang Barham nit la ku lewet nit ku yaatu nit koo xam ne boo ko déggee muy wax comme gaynde waaye nag boo ko boo jëflanteek moom dangay xam ne nit ku oyof a ngi nii nit la koo xam ne amul buntam du tëju mukk fii ba trois heures du matin boo ko soxlaa jot ko nit la koo xam ne fekk mi ngi gis ku waxal rek mi ngi waxtaan mi ngi waxtaan ci ay sagesse am ay xikmaam parce que wallu yàlla Cheikh Tidiane dafa wax mu ne du ñëw ak diine ju bees mais dafay indi dégg-dégg bu bees nag ci diine ji wàllu yàlla ni ñu koy xamee mooy bu ñëwee rek dafay indi ay dégg-dégg yu bees ci aaya yi ni ku nit ñi daan déggee ak ci xadis yi ni ko nit ñi daan déggee ba ci sax environnement bi la wër sax ah daf cee da cee war am dégg-dégg te loolu bàñes jàngal nañu ko ne seetan talal yëngatu yëngatu mbir yi lépp ci xadra yàlla bi la jógee nekk ay lettre jëm ci ci yow kon kooku vraiment mu nekk nit koo xam ne papa la ci ñun waaye suñu doomu bàjjan la ba tey parce que dañ koy dañ koo miin trop te loolu dafa bokk ci pédagogie jàngale fexe ba nit ki miin la ba nga xam ne loo ko bëgg a jàngal loo ko bëgg wax wax ko waaw loolu suñu frère la suñu lépp la waaw nit la koo xam ne daal nit la tamit ku bari xam-xam nag ku bari sagesse nag ay xekma yoo xam ne ni vraiment euh, bëri na loo xam ne ñun jàngoon nañ ko pare biñ ñëwee ci moom génneel nañ ci ay dégg-dégg yoo xam ne euh, dégg-dégg yoo xam ne xel daju ko waaye nopp mosu koo dégg. jot eh, jotaay bi mu doon yóbbal ngir ñu ñuy eh, teewlu ndax jamono ji eh, lu mel ni ay xikma moom dañ koy soxla ci réew mi bi nga duggee ci zikrullah bi ndax danga amoon. koo doon roy mu doon sa idole wala danga nga ñëw ak sa style bopp. waaw man bi ma nekkee xale nag am na benn doomu Baay bu ñuy wax Mouhamad Nazir Ñas te mu niroog Baay nii waaw daan naa ko neexoon na ma trop gàmm mit na Baay bu jotaan pour man li muy def noonu ci gàmm gi maanaam zikar mi zikar noonu pour man loolooy gàmm gi. mosal ñu ci nan la bu ma ñëwaan rek man damay tëdd nelaw. ah ba ba mu commencé rek ma ma jóg di yee nit ñi leen jóg leen gàmm gi commencé na waaw bokk na ci rek bu daan woy allah allah allah allah ya allah allah allah allah allah ya allah أإيوان كسرى هل دعاك وأنذرا بروز نبي إن كسرى تقخرا كسرى أنوشروان جاء محمد بآياته الكبرى وقصرك بصرا أكسرى أنو شروان جاء محمد وهل قطع الأنار أم هل تفجرا أكسرى أنو شروان جاء محمد وهل قد أتاك المبذان مكبرا أكسرى أنو شروان جاء محمد يرتل ذكرا منذرا ومبشرا وقد سجد المعبود لله ناطقا وقد أنبأ الكهان ما كان مضمرا الله الله الله Allah ya Allah Muhammad Nazir moomu yal na ko yàlla gërëm. allahumma amin Euh, bëggoon naa ko trop ba bu kiiwaan sax boo maa ngi nekk xale dama daan foo di takk ay pot di laxas mm, bant di ci laxas sagar comme en forme de micro di ko toppandoo daal loolu moom daan naa ko def mais nag bi ma ñëwee aussi wax dëgg am na air yoo xam ne yu bëri yoo xam ne moom nii rek la ma ñëwalee ci mokkal way rek mu dikkal ma en même temps am na yoo xam ne sax damay taxaw studio rek ah, foofu la may ñëwalee ba nga xam ne damay yuuxu rek dem benn yoon laa koy way du ko wayaat looloo tax. pour su ma la déggee ci say kàddu inspiration bi. waaw waxtu bu ne mën na la dikkal. waxtu bu nekk mën na maa dikkal. waaw waxtu bu nekk comme lu mel ni tabib yi boobu noonu may way loolu. tabib bi moom laa bëggoon euh, wax nii sax di leen ci ñëw ndax tabib bi ni mu la dikkalee. voilà ak tamit succès ñu am boo buñ ci mënee dikkaat waaye lu jiitu loolu dama bëgg a de l'occasion di nuyu la Mahi Niass. xalif général waa kër Maolana Cheikh Ibrahim. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu tamit. amiin amiin kilifa diine yi ci réew mi yëpp moo xam mboolem tarix yi. yi ah, nekk. Eh, tabi bi tudd nga ko léegi kon dañuy dugg ci. waaw si kër soosu rek. tabi bi eh, dama ko jàng mokkal ko doon ko woyantu nii di fo di ko wayantu ci beneen air mais bi ma ñëwee ba studio. ci la ma air bi ma ko wayalee nii dikkalee falaa ko yuuxoo nii way ko benn yoon laa ko way ci micro bi amul luñ ci defaraat amul lu muy xanaa fenn rek mooy ci fin bi la am ku génn lu ku doon dugg ci studio bi dugg bunt bi frappé mu xaw a aw waa ji ne mën naa jëlaat fin bi mais lu dul loolu one way la laa ko def mu jeex te foofu la ma ñëwalee ci ci ci studio bi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 laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ataytu bisunwi ثم أهلي وإلدتي سراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يوم التشفيع أجمع أكتعون أيا نفس أدركت الأماني فاذقي مرابع خير الناس والنور يسطع فالقى صعى واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع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 waaw Bañes moo ci tagg yonant bi fii nag mi ngi ko tuddee mon médecin mon médecin sama sama médecin bi médecin waaw sama médecin bi mooy yonent yàlla Muhammad moom lay waxal ne ko mi ngi ma jege jege na ma jege na ma nii yow sama feebar est-ce que yaa ngi may dégg te bàyyi nag wax na ne moom feebaram mooy bëgg yonent yàlla Muhammad waaye li koy faj ci feebar boobu mooy di janook yonent bi tamit moo tax lim teg ci woy bi mooy yuqaabilu nii mi ngi janook man yow mii ci bés bii tey al muqaffa ki ñëpp di xeeñtu te mooy yonent yàlla Muhammad al mushaffahu ki nga xam ne yàlla moo ko rammuloo nit ñi l'intercesseur te man baay gis naa ne à chaque fois ma dajeeg yonent yàlla Muhammad samay mbir dafay sotti comme ni ma ko bëggee rek loolu lay amee waaw way bi wax na wax na ci yu bëri nag ay wax yu dem na ba ci biir mu wax ne man Baye buñ ma photo en réalité carte bi bu génnee ki ciy feeñ mooy yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam woy wi fan yóbbu ci succès ndax defe naa ni moom euh, lu ñëpp euh, déglu la foo tourné tabibi tabibi bu Seydina Omar Niane woy wi fan la la yóbbu euh, ci succès. waaw way bi yàllaa ko barkeel wax dëgg yóbbu na ma fu ne yóbbu na ma daanaka ci àdduna bi yëpp wër naa ko ndax way bi. waaye li ma ci gën a marqué nag mooy bi ma njëkkee dem Côte d'Ivoire ku nekk di ma nettali anecdote bi nga am ak way bi am na ci ay am na ci kilifa goo xam ne moom nee na way bi mu koy njëkk a dégg ci kaw tali la ko fekk ak otoom mais daanaka dafa naroon crise ci kaw tali bi waaw dafa tàggali ko sagoom daal ba ba ba bàyyi oto ba freiné ci dégg tali bi ba klaxon oto yi moo ko mujjee yeewaat moo ko mujjee réveillé waat waaw ma dem ci Côte d'Ivoire bi mu fa njëkkee dem di ko yëkkati keroog li fa daanu ci nit jege na cinquante personne liñ ma wax ne ma moom la croix rouge compté ci ay nit ñu daanu bi ma yuuxoo tabi bi bi nañ quarante cinq la ci ay nit ñu xam te yooyu vraiment man dama foogoon ne <laughs> mënul sax nekk ndax euh, yooyu ci télé bi laa waroon gisee ci ay concert Michael Jackson ak yooyu waaye way bi xam dem naa ba découvrir lan moo tax ku ko dégg rek mu dugg sa xol mu jooy loola li tax mooy ki ko bind bi mu koy bind nee na daroon daroon mi ngi wax ci biir waay bi ne mi ngi jooy waaw wax na ko kon wax na ne faal xanaa saaha wastaqarat biha nawa wa niltil munaa maa baalu ay ni ki tatmaahu baay mi ngi wax ak boppam ci biir way bi naan yow baay li nga bëggoon yëpp am nga ko kon lan moo tax ngay jooy nii kon loolu bi ma gisee ci laa xam ne kon ndekete way bi lii moo tax kon xëy na dama ko wayee nag moom fi mu ko bindee tamit loolu day am tamit nit dina way wayam eh, mais doo duñ ko wayee fi mu ko bindee moom xëy na moom tamit dama ko wayee fi mu ko bindee moo tax ba ku ko dégg rek mu dugg la donte am na ñeneen ñu ko way waaye melul comme man ni ma ko wayee ba tax ku ko dégg rek mu dugg la am naa du ñu doyal ci tabi bi waaye faaw nu wéyal euh, waxtaan wi rek ci yeneen tomb euh, nga ñëw ci milieu Zikroulah bi ndax defe naa njabootu Maolana Cheikh Ibrahim ñi ci si kër mhm. euh, bëri ñu ci si waaw waaye ci son waaw diggante diggante bu rafet la xam nga Baye Niass mbiram nii bëgg naa sénégalais yi gëstu ko tuuti parce que dafa mbiram boo ci duggee dangay dépasé ay yenn clivage yu bëri daal ay clivage ethnique ak ay yeneen yi parce que moom dalay jeexal ci jëm cos ci jëm yàlla ji nga xam ne mooy cosaanu lépp xam nga yàlla dafa wax ci alquran na fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun buñ ëfee buftu bi askan dafay jeex bàññees nag xaarul moom loolu moom dalay jeexal ci laa ilaaha illallaah bi nga xam ne boo ci jeexee dootoo gisati ni kii wolof la walla kii pël la wala kii hawsa la wala kii yorubaa la wala kii joolaa la wala kii géer la géwél ak yooyu parce que da ngay xam ne yéen a bokk benn cosaan bi cosaan boobu nag mooy yonent yàlla muhammad yonent bi réyalité yi ko yàlla bindee moom la bindee ñëpp léegi nag mu des ku ko yëg ak ku ko yëgut bis boo ko yëgee rek yow doo fi nekk yonent yàlla moo fi nekk looloo tax léegi nag kenn ku nekk buy xool sa morom dafay gis ne kii nii moom mooy moom mooy moom mooy moromam ci daal muy góor muy jigéen nag ba tax na vraiment ñun ay relation yu rafet rek moo mën a am suñu diggante soxna Aida Faye moo ko gëjee dégg yàggul sama xarit la sama soppe la fu nekk la ñuy dajee dajee nañ fu mel ni Abidjan wax dëgg maak moom ah, tombeek ma gis ko ñu koy dugal ci benn oto ma ñëw tooñ ko ne ko soxna si ma ne ko oto bi doo si dugg de kañ dem nga dugg ci sama limousine bi <laughs> ma koy tuut boobu dama gaa yi koy dugal ci oto boo xam ne neexu ma comme man dama am sama benn xarit nag bu nekk foofu boo xam ne waa dafa am xaalis ay oto kii lay dawal <laughs> ay oto yu bakkane yooyu <laughs> ay ma ñëw ne ko soxna si génnal fii kañ dem ñu dugg ci sama oto bi ñu dem ñu bokk oto vraiment euh, photo photo nañ sax ba ma dugal ko sama Facebook et tout donc pour pour te diir rek que ne ñun euh, vraiment noonu lañ mel on se ay xarit lañ dañuy déggante dañuy seetiwante fan yi seeti naa ko euh, këram fekkuma ko fa sax wax dëgg waaw. sa diggante ak yeneen këru diine yi ndax ci sa wax jooju nga wax nii yóbbu gi lay mbind bàyyi di yóbbu ba nga xamante ni dootoo yëgati sax etni am na maanaam waasoog li nu mel. effectivement loo ci wax par rapport tey ak këru diine ak sa rapport yi nga am ak. waaw yeneen tàggkatu yonent wi ñun ñun daf ñuy tere ñuy wax këru diine yi nee na këri diine ji la ñu wax këri. xam waa diine ji boo boo nee këru mooy benn kër waaye boo nee kër yi ay kër la waaye diine ji benn la kon. diine ji benn la kër yi nag mën naa bëri ay relation yu rafet laa am ak ñoom boo demee Tiwaawoon am fa ay xarit Abdou Aziz mbay sama xarit la sama soppe la buñ dajewee vraiment day kontaan ah, ma kontaan ñuy saafuwante waxtaan et tout euh, Abdou Aziz Dabakh am na doomam bu ñuy wax Alpha Sy sama xarit la maa ngi fii numéro am ah sëñ ah, boo demee Touba aussi ku mel ni sëñ Abo Mbacke xalifa sëñ Fallou xam na ko bu baax xam naa ko bu baax bokkoon nañ benn kër maak moom Abidjan wax dëgg ah, ba ci kër boo demee sax ci waa kër Cheikh Ibra Fall am na ku ñëw Moustapha Fall nga xam ne ah, moo topp ci xalifa bi sax foog naa sama waaye la moom alxuraan la may woowee moom sama xarit dëgg la waaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku mel ni doomi sëñ Fall bu ñuy wax Chérif Mbacke kooku tamit sama soppale daf may woo téléphone sax ñuy déggante ndax li may def moo ko neex waaw pour xam rek ne li ñuy def ñun dafa universalité. macha allah macha allah na yàlla euh, barkeel bu weesoo fasetu tey euh, gi ngay def euh, seen Omar ci lan lay yëngu nga xamante ni ko Omar Ñaan zigarkat la zigar bi rek mën na koo dundal waaw zigar bi rek wax dëgg mën na maa dundal parce que loo xam ne maa ngi ci signé ay contrat fone ne di ay contrat ak orange boobu ma orange sax waaye boo génnee Sénégal nga dem Nigéria maa ngi fa signé contrat ak ay société de yi yu mel ni orange comme Glo MTN nga dugg Ghana et cetera nga <laughs> dem Côte d'Ivoire noonu kon daanaka zigar bi kon mi ngi may dundal man man na maa dundal ndax li ma ciy gañe waaw beneen bi mooy Omar ñaan entrepreneur la ah, am na société boo xam ne ñu ngi def import export mu ngi def transport logistique et cetera yooyu yëpp maa ngi ci maa ngi ciy yëngatu beneen bi nag bi mujj bi nag moom mooy homme politique la. voilà ah. kon ñu ñëw ci kasketu homme politique boobu defe naa yaa ngi taxawal kuréel bu tudd bëgg. sa réew. lan moo sabab Oumar ñaan dugg ci politique bee taxawal kuréel ba duppee ko bëgg sa réew. waaw kuréel gi sax taxaw taxawaluma ko daanaka ay mais ñi ko taxaw taxawal ci laa bokk ci laa bokk nag membre fondateur laa ci waaye idée bi sax jógeewul ci man. ci ñeneen la jóge woon ñoo ñoo ko créé dafa dem am njëkk nañoo am président bu tudd Souleymane Sow ah kooku moo dem ba mu yàgg mu bàyyi man ñu jox gaa yi xool-xool jox ma ko waaye li ñu tax dugg ci politique lenn rek la mooy dañoo gëm ne mbir yi doo nekk ci biti di subir rek déedéet danga nga war a bokk ci acteurs yi tey Sénégal ñëpp a ngi kaas réew mi doxul mais yow loo def pour mu changer réew mi doxul lii nangam lii nang ku nekk ngi wax mais lan lañ def ñun pour mu changer loolu moo tax nag comme nag ñun man damaa gëm ne dañoo faussé suñ départ ñun nag ñun waruñoo subir loolu dañoo war a taxaw pour jël affaire bi refondé waat réew mi teg ko ci yoon loolu laa gëm loolu moo tax ma dugg ci politique. politique tamit eh, daanaka. dugguñu ci pour am xaalis dugguñu ci. waaye ndax jàppoon ni mën nga cee ñàkk ay soppe ndax ñi lay bëgg bëggeewuñu la xëy na ci casquette politique bi ci casquette diine gi lañ la bëggee tey ñu nar a yëg ni kat na Omar amal na kuréelu politique boo xam ne ca lay fas yéene yëngu noo nar a dundee léegi sa wàll wi la ñëpp xamee ak wàll wi nga xamante nii dafay indi yeneen enjeu ci sa carrière. waaw dafa am loo xam ne biñ ciy dugg zikar bi. dugguñ ci woon pour am ay soppe xalaat fuñ ci yegg nii xalaatuñ ko woon sax xam nga dafa am loo xam ne foog sa xel daj ko pour nga wut ko pour nga am ko mais fiñ ci yegg nii wallaay suñu xel daju ko daju ko woon bañ ciy dugg ngir yàlla kese la woon dañ ko doon def avec passion ah biñ ma ci njëkkee jox dix mille francs dafa bëreeg man torop torop torop torop yaa ngi dégg parce que loolu taxul ñuul ñu xaalis taxul ñuul di zikar dara xëy na nag walim laa wax wa izzul abdi izzu malikihi la yàlla woxoon eh, la bàññes pour pourquoi pas jaam bi dund ci teraanga boromam lii la yàlla teralee ñu ngi ciy dund ñu ngi ciy am soppe waaye soppe taxuloon ñoo jóg loolu nag moom duñ ko mos a fàtte loolu duñ ko mos a fàtte ne soppe taxuloon ñoo jóg kon du tee aussi buñ gisee dëgg dox ci wax ci bu ñu ciy mere ñu mere ñu buñ ciy bëgg tamit ñu bëgg ñu ci ndax euh, Omar Niane oustaz li xew ci réew mi ndaw yi ñu ngi sàkku liggéey ñu ngi ñaxtu jamono yi ñu weesu gis nga fi génn gi nu génn ay manifestation mhm. ba am na ñu ci loru am ñu ci ñàkk seen bàkkan ñu ngi leen di jaale de passage eh, seen njaboot te di leen ñaanal fa nu jëm gënal leen fii nu jóge eh, ndax danga am tey jii nii yoo xamante ni gis nga ni doxul ci réew mi ba tax na war nga mën a indi sa eh, contribution waaw lan moo la nakari <laughs> ba nga bëgg tey bëgg am loo waaw daanaka dara man nag bon naqari sax du naqari du naqari parce que dama gëm ne rek yàlla ni fu la bàyyi fu la teg dina la fa jox subsistance ba muy wàcc yonent yàlla Ibrahim màkk ak jabaram ba mu la ba leen fa yonent yàlla Ibrahim di bàyyi. booba désert kese la woon gis nga tey màkkani ni mel kon réew mi aussi ñun mën nañ koo defar dama gëm na nag fi ñu déparé baaxul fi ñu déparé d'abord ñuy jànge daf ñuy tardeel loolu man dama gëm ne dañoo war a xeex fi mu toll nii pour mu jógee fi parce que fik ñu ngi jàngee france nekkul ne nag c'est parce que damaa déggul français je m'exprime assez Tu as fait l'université, donc, des sciences voilà, politiques. Donc je m'exprime assez bien en français. C'est pas parce que je ne parle pas le français donc que je combats le français. Non, c'est pas ça. Mais dama gis ne daf ñuy tardeel mi ngi ñuy gën di tardeel. Munoo nekk wolof di jànge langue boo xam ne c'est à milliers de kilomètres du Sénégal te ñoom ba ñuy tànn langue boobu di ko jàngee boobu c'est le quart de leur population moo ko doon wax mooy waa Île-de-France boobu ñoo doon làkk français ñoom nen mais ñu gis ne comme ñii ñoo ëpp te seen intérêt ci ñu ñu dëppoo ci langue bi la def ko seen langue officielle donte seen langue yi ci des ba léegi disparaître mu ngi fa France bu yàggul gis naa Emmanuel Macron di ci wax nous devons être fiers de non langues, nos, nos, nos langues sont notre culture, constituent notre culture, et cetera yooyu donc kon moo lay wan ne kon foog ñu dëppoo ci benn langue boo xam ne comme ñëpp a koy wax ñu dëppoo ci France noonu lañ def ñun tamit bu ñu bëggee avancer foog ñu def noonu parce que français bi jàngee français moom raw na la ba pare yow foog nga ñëwaat di jàng ay la meew ak la ci sa ci ci seen langue ñoom mais yow loolu xamoon nga koo pare xam nga ko ci sa langue boo pare loolu jarul jàngati dañ la jàngal leneen nga avancé mais boo ci waree def vingt ans te doo ko dégg tubaab moom raw na loo pare parce que moom dégg na koo pare langam la moom bu demee këram du jàngaat français du jàngaat leçon parce que luñ ko wax ci langam la jàpp na ko ba pare yow boo ñëwee ci kër gi c'est pas c'est parce que du sa langue moo tax ngay jàngaat say leçon noonu pour pour pour mokkal ko dégg beneen bi mooy bu ñu bëggee moral moral bi ñu bëgg ci nit ñi ak civisme bi ñu bëgg ci nit ñi buñ ko bëggee foog ñu leen di jàngal ci wolof parce que boo dee gi nga boo demee école xale yi niñ mokkalee man damay sangu man damay sangu doom yaay moo baax ci yaram gis nga niñ ko mokkalee bokkul ak yeneen way yi essaye ni parce que ci seen langue lañ ko jàngee léegi nag kooku tey boo ko jàngalee noonu bu génnee dafay rus a def yenn yi parce que xam na ko moo tax li nga ko jàngal ci français noonu ci éducation morale xamul lu muy firi da ko mokkal ni rek di ko wax li nga ko jàngal ci éducation civique xamul lu muy firi da ko mokkal di ko wax mais bu doon làngam la bu génnee dafay am automatisme ci moom ba tey bu bëggee sànni tey mbalit ci mbedd bi du ko ñeme parce que nekk na ci moom ba pare ba ci diina ji sax boo gisee yenn ustaas yi nekk fi ay star c'est parce que loolu rek la dañoo jàng arab alors que diina ji du noonu dañ ko doon jàngale ci wolof ay farataay njàpp ñu la ay an niyatu ci arab nga war koo kii déedéet nañ la jàngal ne yéene d'abord est-ce que yaay dégg raxas sa kanam naa ba mu jeex mais baatu arab yi ñu ciy dugal moo ko compliqué ba nit ñi tayal pour jàng ko ba nga xam ne tey diina ji dañ koo moomale ñenn alors que ci ñëpp la waroon a nekk waaw. nekk na ay tomb bi am solo daanaka ñu ngi ci njeexital euh, jotaay euh, waxtaan wi. Euh, mhm. xëy na tey fi ñu lay bàyyi nga tëjee rek loo xam ne laajuma la ko bëggoon nga koon tey partagé ak askan wi te ñu ngi lay eh, teewlu Seydina Omar. waaw daanaka amul <laughs> kontaan naa trop ci yow vraiment xam naa ne ku dal nga ku yaru nga vraiment ah, ñu ngi wax ne rek Sénégal ñun ñëpp ko bokk nañuy def ndànk nañu teey suñu institution yi buñ ko fragiliser ah nañ ko dëgëral ah, ba pare nit ñi dañ gëstu yeneen réew yi ñuy wër est-ce que ñooñu raw ba pare parce que sénégalais yi tamit li ñuy kaas bëri na de man nag tukki naa tuuti wër naa fii ci Afrique noire waaye gisu sa eh, gisuma dëkk bi moo gis moo dese mel ko oh, waaw loo li ngay kaas fii moom la keneen di kaas feneen boo demee ba France boo booy <laughs> suivre actualité française day mel ni waa France ak Sénégal benn la parce que yow li ngay kaas Sénégal fii ñoom tam moom la ñuy kaas nga dem États-Unis pareil nga ñëw Afrique Côte d'Ivoire pare nga dem Benin pareil foo dem kon dafa mel ni àdduna bi kon li ñuy kaas ñëpp moom la ñuy kaas mais man li ma gëm mooy d'abord xam-xam parce que xam-xam mooy tax après nga am doole boo amee xam-xam di nga mën yu bëri defal ko sa bopp loo mën a defal sa bopp rek ah, boo ko defee bu soobee dootoo soxlaal keneen loolu mooy tax nga am doole mais tant yaa ngi soxlaal ñeneen ñi. doo mës a am doole ba pare tu seras obligé de te soumettre loolu moo waral tey fii ñu ngi xeex góor jigéen par exemple day jafe ci ñun parce que tey outil yan la. lan mooy ci sa gis-gis say combat bi nga xamante ni tey ñu ngi koy mënee contre mouvement boobu di LGBT. góor jigéen yonent yàlla ma mat moo ne bu góor waree moroomu góoram aras day yëngatu. ba pare yonent bi ne fu ngeen fekkee góor jigéen ñi rey leen leen. njaalo sax lim ci wax donte même àtte bi la mais njaalo foog moom ñeenti seede et cetera mais góor jigéen moom dane fu leen fekk rey leen leen loolu la ci wax kon pour te dire gravité bi mais xeex bi c'est perdu d'avance xam nga lu tax xool Facebook ku ko moom Mark tubaab yoo ko moom tubaab homosexualité seen culture la bokk dafa bokk ci ñoom dañ fa bëri góor jigéen YouTube ku ko moom ñun utu yooyu la ñuy xeexee di te boo fa public outil yi ñu leen bëgg euh, euh, li ñu leen bëgg a xeexee ñoom ñoo ko moom ñoom moom la ñuy jëfandikoo ñun moom la ñuy jëfandikoo léegi lan la ñuy def boo waxee si ñoom ñu bloqué la supprimer sa compte loo ci man bu yàggee loo looy def maslaa. doo tey tey balaa waxtu wi dinu dab euh, conseil yi nga am ci ni nga xamante ne te moom la ñu war a xeexee même bu dul góor jigéen sax ak yeneen ñaawteef surtout ci wàllu yàqu ji koy ak jamono yi fu mu toll. mooy xam-xam foog mu am te xam-xam nag li koy maye mooy ñu teg làkku jàmbur yi ñuy jàngee jàngee suñu làkk buñ ko defee bu yàggee ñu am xam-xam yi nga chinois yi tey kenn yabu leen arab yi sax ay Qatar ak Arabie Saoudite yi kenn yabu leen kenn ñemul attaqué seen culture tey lan moo leen ko may doole moo tax doole xam-xam moo leen ko may doole alal doole xam-xam demal chinois yi coréens yi japonais kenn yabu leen kenn du dem di leen imposer quoi que ce soit parce que tey lu ne ñoom mën nañ ko defaral seen bopp tey Chine ñoo ngi di créer tey application boo xam ne tey moo raw Facebook ah, ci ci ci ci buzz muy TikTok TikTok amul lu ko gën a gaaw fu mu toll nii ah, loolu la mais affaire bi loolu la tey xeex bi foofu la da ngay wut xam-xam comme ñoom. al al ilmu nuurun. waaw al ilmu al ilmu wala imaam loolu la bañ a waxoon nee na xam-xam mooy njiit tànk amoo xam-xam nag ah da ngay mujj topp seen ginnaaw. loolu rek moo mën a am buñ bëggee doole fa ñu wuti xam-xam parce que mooy wane doole suñu amee doole nag su boobaa nag lu ñu neex def. sa kàddu gu mujj ñu bàyyi la nga tàggatoo. sama kàddu gu mujj mooy di gërëm li la gërëm yow yaa Moussa vraiment di rafetlu liggéeyu Sénégal di wax rek di nuyu sénégalais yëpp. tamit euh, di nuyu tamit di béggee aussi képp kuy béggee oustaz El Hadj Omar Niane maa ngi nuyu sama waa xadara muy xadratu firyaanu sidqin waaye aussi maa ngi nuyu suñu waa parti muy bëgg sa réew ñu nga doon wax sànq maa ngi nuyu ñëpp tous les membres du parti di nuyu ñu jiite cellules yeeg yëpp ah, di wax wa aaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin tabarakallah doyalu ñu waaye waxtu wi di jaajëfal ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon teewul ci Sénégal di leen ñaanal te bu leen nu fàtte ci ñaan di leen jaajëfal ci ànd geeg topp gi di leen jox dig daje ci yeneen jotaay ak yeneen invité lépp ngir euh, jox leen li ngeen xamante ni dina doon contribution ci luy jëmale réew mi kanam jaa ngeen jëf wasalaam.